جلتي ينتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي بالحق نيب تاي بالو نيب يلا نانو يلا بولي جيغل دي نوكل جوليت ييبيت تي حج مكه جي جال اك تبسكي جال buy ñëwaat déwén yàlla na fi fekk kenn ku nekk it yàlla na ko yàlla defal aj guñ nangu ñi jutta aji te jote tabaski it yàlla na ko yàlla nangu ñuy fàttalante nag ne lii indi sunuy maam wala sunu maam aadama alayhi salaam ba ci sunu maam yu mujj yi li leen indi woon ci kaw suuf si mooy ñu jaamu fi yàlla nekkal fi yàlla nekkal fi yàlla nag tekkiwut ne dafa nekkut waaye bam ñu fii laata indi la waxoon ñam doon waxal ne am na ku ma bëgg a yóbbu ca kaw suuf sa mu nekkal ma fa inni jaalun fi l ardi xalifatan fekk mu waxoon ne ñun ñi ak ñeneen te ñu bari si ñun duñ leen gis lim ñu lim ñuy doyee ba tax ñu bind mooy nu jaamu ko jaamu gi nag fii la ko taamoo woon ci kaw suuf si am na ci yoo xam ne am na ay waxtu bu waxtu yoo jàllee nit ki dem ci ay yiteem am ca yoo xam ne at mu jot lay ñëw am ci yoo xam ne ci jaamu yi goo xam ne sax nit mën naa dund ba bàyyi ko fi te du ko mës a def muy lu mel ni génne aseka jaamu yàlla la goo xam ne nit mën naa dund ba faatu te du am lu mu mas a génne asaka yeneen yi ñëw yépp nag lu nit néewle néewle yitte man ca dara yal na ñu ko yàlla jàppandalal lu mel ni xaj màkk gi nag ak tëbës gi nga xam ne romb na suñu boroom waxoon nañu ne moo bind nit ca nam ko soobe waye leg leg nit tollu wat fo xamni fi day melne ne wone day won ñan ñi daal ne mom da ñëwal bopam non rek waye kenn bindu ko yan ñu ca lu musal mooy fi ci waram di waxe ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin moy bu su ko ñëw du waibu dara waye bu fi yagge touti da ngay gis muy manal bopam ba yagg sax mu yëkkati loxom ne mo man bam yagg mu yàgg wat di delu delluwaat gannaaw ba yagg lu man dañ ko ko manal bokku yi bobu muy man ba loxom naan mo man na xam ne lu ko fi war moy jaamu fi yalla jaamu yalla yi nga xam waxtu wu nek da am waxtu yum cey doon jamono ñu daa am waxtu yu mu ca doon bala mu caa àgg mu waajal ko xam ne mi ngi jëm ci jaamu yàlla ak jaamu yàlla kenn ci ku nekk buy tukki sax dana ko waajal ba ku xam tukki da nga xam ne mi ngi waajal ab tukki waaye kon ku jëm ci jaamu yàlla war na koo waajal na mu koy waajale mooy fas ko yéene jëfe ne ko suñu borom santaane su ca àggee dana yomb ci moom lool waaye su ndigal la jàlle it wërta ca ay loxoom wala ay yoxoom na jaanam wàcc na daa war a dallu ji déedéet daa war a négaat daa war a waajalewaat geneen jaam yàlla gi cay toppaat mooy war a saabu boog jaam yàlla ñëwee ba jàll lu mel ne yaar yooyu ma tuddoon am na ñoo xam ne danañ ci daj lu nekk dëgg dëgg tëdd danañ ci def lu baax lu nekk waaye nag ñu xam ne jaamu yàlla jeexu jeexewut foofu kese ñaké don aji teunk geleen aj ga teunkoon ci do def nangam ak nangam ak nangam nañ xamné daf leen bind bataaxal boo xam ne dañ ko war di jang sa su nek sa su ñu ko di jang buñ bisé bañ ñi bisé na sama na jaaram wacc na dem na ba dik jeex na jeex na di wat ci na meloon yakutuk aj waye xañe na yol bu bari ndax lañ ko jangal ci ak jang mu nafaru ci dara lu ci dara yalla ci yalla musal hajjul mabruur sax am na ñoo xam nañ ko tekke moy bata xal bobu gi di bind nit ki bu fa joge mu top ko su ko topé mi ngi jaar ci yoonu jëm aljanna laysa lahu jaza illa aljanna gannaaw nak man ak mën mo fi nek jamono bi ñuy mën jaamu yalla guñ joge nañ wajal geneen fas yéene gay ñëw gën nga ko nga ko jiitu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li gën ci jëf yi nit kiy jëf mu néew mu bari mooy la ca gën a sax mooy la nga xam ne bu ko xasee ba jàpp duutu ko bàyyi ndax jullit bi saa su nekk war na jéggi ab jéego di gën a kawe di romb fam yamoon démb tey ju nekk war a gàcceel démb lu ci nekk su ñëwee ba dem su amee lu muy rëccu rek mooy lu teewoon mu gën a bari waaye lañ ko ca santoon lépp def na ko nam ko mane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooju ak taxawaay boobu yi muy ak jaamu yàlla buy jub mu waaj ko su ca àggee def ko nañ ko ko sante ak nam ko mane di ko def nam ko mane ba ba mu àgg nam ko nañ ko sante su ca jógee mu toftal ca lu mu ca jànge woon ci def lu baax mu wéyal ko nee na kooku ak tukkeem ak toogam ñoo yam yool ba ko suñu boroom di bindal du dakk loolu loolu lañ ciy dégg rek mooy kon wayi moom mënut a ñàkk ci nit way way deng laajas na ko bisit ana jëf yi yàlla gën a bëgg ci jëfi jaam bi mu ne janga xam ne wóor na koon yàllaa ko santaane bu ko xasee ba tàmbali duutu ko bàyyi mukk te du ca xuuxli xuuxli mooy di ci bëgg rey boppam waaye nam ko mën a la koy defee waaye saxal na ko kon bokk ñi nga xam ne dañ doon jël ay gàtt di ko dimbale ji ñi nga xam ne soxla nañ ko te mënuñu ko am nañ xam ne waxtu gàtt moom mën naa jàll waaye waxtu gudd moo gën a gudd fuuf yeneen yi taxaw moo gën a gudd moo gën a yaatu te soxlaam it moo gën a daj ñi ngi dégg saa su nekk ñuy wax ci fii ci dëkk bii fii amul ndox fii amul ndox ndoxum naan laa wax fii amul ndox fii amul ndox fii amul ndox ñi nga xam ne nag defoon nañ ci tabaski yii jàll yu baax lool wut ay gàtt yu bare bare bare bare bari fésal ko wala ñenn ñi fésaluñ ko di ko yët ña nga xam ne ñoo ko soxla nañ xam ne luy taxaw moom ndox mënu caa bokk ñu geesuwaat bu baax fenn fu ci nekk su fekkee lu baax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lu ci nit tàmbali lu mu néew néew na ko saxal bu ko mënee saxal moo gën nañ xam ne gàtt yi jàll na moom jamonoom dañ ko santaanee woon moom waaye ndox nag mënut taxaw ndox ak lekk dara mënu caa taxaw ñoom sax ñoo taxaloo eh, doon nañ misaal ne yi ñu yàlla booleel te taggo ak mom war nañ leena a waggar bokk na ca daamar yi ñi démé daamar yoyu ku ci xass ba am ben dutu ko bëgg dutu bëgg taggo ak mom te di neñ tam day doon ay soxla dis na ci dox farasa di ci dox lo xana dara ñurut ñurut day tok ba yag rek xelam dem ci dem mu jog di dem nit mu ko kenn nit am ci mu ndog waaye bu ñëwee diko wallu ci ci daamar lañ koy dougalat kon lu ne mën taxaw bam dess des daamar waaye it sawara mi ñu jël di ko jëfandikoo itam leg léeg mu jaar fenn jël fa lu bari waye ni suutu nga dégg jigen ñu ne xaar ma ñew man ta leen dal sawara leen ko tek kon yi nga xamne dañu dëkk ak mom munta nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku ci tambali lenn lu bax na fexé ba saxal ko kon boog ñi nga gor gor lu won nañ fexe ba dimbale ñu bari ñu am lu ñu tabaskee wala ñu dimbal leen dimbale ñu bari ñu am lu ñu demee Makka nañ xam ne Makka jàll na tabaski jàll na waaye am na ci warab yoo xam ne yii ci dëkk bii nu nekk ak yeneen dëkk sax ndox muñ naan tëna leen ticc ticc ticc te léeg-léeg gis ku jënd am xar loo xam ne yóbbul na mbooloo mu bari ndox muñ naan su fekkee yay doxal ndox mu am gàllankoor it ñaata nit ñoo mën a jënd ya koy ya koy doxal nit ñi naan ngir yàlla te bokk yi foofu am na fi lu fi tàmbalee yàlla rek xam kañ la jëm yéen yett yi yunt bi sallallahu alayhi wax ne ku fi bàyyi ko lépp may taxaw ba mu des yett yett yooyee fekk forage boo xam ne pompe ba daa yàqu ña dëkk ak ñam daan jox ndépp ndox ñëpp amatuñ ko nga fexe ba am pompe mucc ayib buñ ca jàppee ca ndox ma ma muy xel bu waaj a amee ca yoolum jàpp ma dara jàpp ma ab yool danga ca am ndax yaa tax ba tiimut sekkantuma sàngu farata mi nga xam ne moom ci njàpp njàpp lay waajal waaye buñ ko tegee lekk lekk lu dagan dug neen yàlla da koy fay ni muy mbugale ku lekk tere kooko it dana la fa fekk waaye nag ku ku ca romb ñu dox ko mu naan it ba ci bahima yi nga xam ne dañ leen a yore te seenug naan war nu ku ca naan it bu ca naan it ab yolam dana fay fekk ndax yonent bi sallallahu alayhi nekk leen ne ne am na kac kàccoor boo xam ne la ko yóbbu aljanna mooy daa tase fa teen ba akub kël bu boo xam ne daa mar ba munta noyyi mu wër amut baag mu yor dàll wu xóot mu fexe ba takk ca ak buum génneel kël bu boobee ndox mu naan ca la ko yàlla yërëme sakkantuma nag aw nit kon boog yu baax yi ñuy def te yaa ñaari xew-xew yooyu bokk ci rikk nañ fexe ba dugg ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jane lu waay di tàmbali ci lu baax na fexe ba saxal ko nañ ko wéyal dimbali nit ñi bañ am ndox muñ naan euh, wér na loolu sax ne ñaan di ñaan yàlla mii kii gën a ëpp lu muy ñaan moom la ay soxlaan di gën a faju mooy saxal ko am na woroom xam-xam yi wax ne léegi leen gis kuy ñaan ren ba déwén gisut lu ca bokk mu tàmbalee tayal nan lima ñaan lépp am nañu ñaan lu ko ëpp fuuf ba sunu mam ba sunu mam Ibrahima ni ko nit ñi waxe non lañ ko daan waye bu njëkk suñu mam Ibrahima bam nan rabbi jaal hada baladan aminan ak hada al balada aminan warzuq warzuq ahlahu min athamarat ba mu koy wax booba luy niroog garab sax taxawu fa waye jamono yi ñu toll lepp lo bëgg luy jóge ci garab ak ndox boo ko laajee ñu man la ko boo xamee nu mu tudd ñaanaam ak suñu jamono ñaata at la waye da waro na ñaan di ñaan rek muy ak way deng sa boo waré ñaan rek ñaan bu bu ko yalla di indi bu ko fa fekke baxna su ko fekkut ñaan fa fekk jariñoo ko bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu la subal adni tukki ñepp diko waj so ca bëgguna so ca waajoon na jëmbat garab sax bu tax nga bayiko ko soo waajoon garab go xam ne nga suba la addu tukki sax yow bu na tay jëmbat garab goge ke fekkon ak góor muy jëmbat suñ garab yi dekk ak guy mu ne ko góor gi yow ñaata at nga am wax ko mu ne ko ngay jëmbat guy nak mu ne ko ah lu lu ci nek mu ne ko dama xamne yalla man na lu nek waaye yow mi bayi defe bëgguy gi di am ay wuy ak buy mu ne ko buy bi ma doon jëfandikoo kat muy jóge ci aw wuy ak guy jur leen xawma ko ko jëmbatoon mayet naa jëmbat bàyyi fa rek loolu nag mooy way kon boog lañ ca jot a def ci lu baax am ci am ci ay jàmbaar yàlla na ko yàlla nangu waaye nag nañ xam ne gi am na ñu ko gën a soxla lool fii mu nekk ñoo xam ne am xar ren dem xar ci gi waru leen woon te dana leen fa fekk am na ñoo xam ne it dem màkk wala bu ñu demee màkk ñëw bi soxla ndox kon lu nit di mu mu bari na fexe ba saxal ko jaamu yàlla nag jeexagut li feeg ñi ngi ñi ngi dund li feeg ñi ngi dund aljanna ji nga xam ne jullit gëm nañ ko te di ñaan suñu borom mu yóbbu na ñun ku basri nee saa bu nit ki tàmbalee jaamu yàlla di ko sellal lu mu néew néew fas yéene mu sax am na malaayika yooyu tàmbali di ko tabaxal ay kër ca aljanna ja ko yàlla di fayee waaye saa bu ko daggee malaayika yi dañuy taxaw ñu ngi mel ne kuy jox maçon yi ñu tabax ba yàgg ñu ne ko ciment jeex na feer jeex na muy wutiwaat ku ne xam na ne ba ba muy dellusiwaat di leen jox fer ak moom maçon yi duñu liggéey nee na malaayika yooyu dañuy taxaw di xaar daan ne tey ngeen yërëm malaayka yi nga xam ne liggéey rek mooy seen liggéey liggéey rek mooy seen liggéey ñi am liggéey saa su nekk kër gu àgg ñu tabaxaat geneen ndax loolu moo tax yàlla sàkk leen yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu seytaane ak pakkam ndax seytaane ak pakkam mooy waral ñu baree bari di diis seen soxla mu déy la ndànk na leen nit ñi ku bëgg faj seen soxla léegi tey doo am loo faj soxla yow ci sa bopp tabaski gi rek la woon média bi dana ko jël ñëpp siiwal ko bàyyil ba beneen rek waajalal nangam ji ñëwaat waaw waajal màggal ji ji waajal nangam ji ñëwaat ku mu fiy fekk ndax moom moom mi xam na ba xam dana ko fekk waaw wala déet wala ñam ko daan yët ak leen ko defal ndax xam ne dana leen fekkam déet kon boog àdduna yàkkamti la laaj yàkkamti yàkkamti gii nekk ci kaw yoon yi nga xam ne ku duxul ñu rox romb la àdduna lay misaal am na ñoo xam ne looy dox ci tali bi lu mu bari dañ lay romb ba mel ne da ngaa taxaw xawma jar na ko ndéet nag waaye bu dee jëm ci lu wut wut lu baax moom jar na lu ko ëpp te moo ñuy amal njariñ ëllëg tey ji këru liggéey la ëllëg këru fay la ku fas yéene nag boo tàllalee ñu teg ca dangay fexe ba bu ñu lay peeseel mu diis gan te lañ lay peeseel di lu baax. يغفر الله لنا ولكم ولسنا